nag dafa jàppoon ni Eva euh, xale boo xam ni la Elena Yves nekkagul ci euh, yenn yi ba tax na sax da ko doon bëgg di utal copain alors que moom Eva mi ngi nekkoon rek di nekk ak euh, ki nga xam ni moo di Ousmane ba tax na nag mu ñëw daal di leen di xas bañ ràpp dal ci seen kaw waaye nag Eva riposté na te it nag défendre na boppam war na ko ni ko mbëggeelam lay topp te nag Ousmane la xolam choisir loolu nag nekk na loo xam ni Sara mënu koo dégg waaye Eva da yi nga ni amoon na ko lu doy waar la ndax yaakaar naa moom Sara nekk na koo xam ni moom it lépp loo xam ni da ko doon def rek euh, da ko mënoon a def ngir nekk koo xam ni ku indépendante lay doon def na ko ndax tey dafa nekk koo xam ni rek dafa bëgg jiite ñëpp taxaw nekk ci kaw kanamu ñëpp euh, di manipule seen vie ni mu ko neexee alors que li mu xamul mooy bukki bëgg moom la mbaam bëgg tey moom euh, Sara lim bëgg la ay moroomam bëgg ba tax na muy Eva muy kat yi ñoom ñëpp daal di nañuy riposter daal di taxaw seen taxaw ngir nag mën dépendre ci moom Sara ndax yaakaar naa euh, àndandoo neex na waaye koo bàyyi itam mu demal ak euh, boppam ñu jàll ci Ramatoulaye ak Aysatu ñoom nañuy continuer di jouer le jeu ba tax na bisu moom mel na ni ba tey mi ngi continuer rek di leen euh, gëm di gëm ni ñoom ñaar seen diggante neexul ba tax muy jouer rôle lu seytaane ci seen diggante surtout bu nekkee ak Aysata di wax du mal ak ci kanamu ki nga xam ni moo di Ramatoulaye mu mel ni nag tey Aysatu moom it soupçonné nag ni moom mi nga ñoo neex woon ndax dafa gis euh, numéro bi koy woo boss affiché si mu jàpp ne boss boobu ki nga xam ni moo di Sara di moins la war a doon ñu jàll ci moom Sara Sara nag moom mel na ni tey li mu gis métti na ko ndax euh, moom euh, ki nga xam ni moo di Eva da koo jàppee woon innocent di jàppee ko koo xam ni xamul dara ba tax na kon tey mbetteel bi mu am nekk na loo xam ne lu ko métti la ki nga xam ni moo ko trahi mooy koo xam ni da koo jàppee woon rakk jàppee woon ko xarit jàppee woon ko foon foo xam ni tegu fa kenn ndax Eva moom bëggoon na ko naa ni inter la leen toppee woon waaye Eva moom da koo bëggoon ndax boo demee ba confier nit say euh, document yoo xam ne mën na laa euh, indil problème kooku bëgg nga ko waaye am nga ci moom confiance ndax jàppoon na ni Eva du ko mos a trahir waaye tey kooku moom moo ko trahir euh, ba tax na kon mu am kër cœur yi ñu jàpp jàll ci soxna soxna nag elle est malheureuse moom li tax mu malheureuse mooy dafa jàpp ni kenn bëggu ko ndax dafa dem ba ci Masamba bëgg nekk ak moom Masamba bañ xamal ko carrément que ni bëggu ko Jules mi nga xam ni nag da koo bëgg dem ba commencé ko wax ay sentiment wam Jules daal di daw kenn gisatu ko waaye mel na ni fi muy waxee Abdoulaye moom moo ñëw Abdoulaye moomu euh, ko waaye nag euh, Abdoulaye euh, nuruwul ku baax ki parce que ku xam Abdoulaye xam ni nekkeewu fi lu dul di profiter ci xale yu jigéen ñi waaye peut-être tey mu nekk rek situation bu différente parce que ku ne xam na ni soxna jigéen bu baax la te yaakaar naa nit loo bon bon boo tasee baax mën na la influencer ba nga daal di wëññeeku ànd ak moom ci mbaax boobu ñu jàll ci Aysatu Aysatu nag moom mën naa ni moom dafa am raison di soupçonner ki nga xam ni moo di bisu ndax boss bi mu waxoon mooy saara ndax gis nañu ni biisu day liggéey pour saara parce que lépp lu xew ci euh, entreprise bi ñëw na daal di ko koy wax mu mel ni kon moo nekk ay gëtam nekk ay noppam ci bureau ba waaye mel na ni nag moom euh, biisu lim fa gisagu euh, dara nekku ci loo xam ni lu soupçonnant la parce que moom à chaque fois day gis Aysatu ak Ramatulaay di xuloo ak di werante ñu jàll ci Aysatu ak Ramatulaay ñoom nag jamono ji yaakaar naa kenn gënu leen malheureuse ndax li ñuy dund métti na trop dara waralu ko dul mbëggeel mbëggeel nag dañu moroomam te nag ku mu song daal di lay daan kon Aysatu ak Ramatulaay mbëggeel daan na leen ndax tey ñi nga xam ne ñoom lañ doon euh, bëgg tey mënuñoo nekk ak ñoom bànneex bi ñu doon dund ak ñoom mootuñu koo dund ak ñoom ndax bu dul dara sax gisuñu leen waaye ki nga xam ni moo di euh, Ramatulaay moom mel na ni tey dafa pare ci Masamba donte nag bëgg na ko ndax yaakaar naa koo bëggul doo nekk di ko xalaat bay jooy waaye bi Masamba ñibbisee da koo daal di euh, xas yàq ko lu mel ni xamee xamal ko xarit nan la war a taxawoo xaritam ndax jàpp ni Masamba taxawoowul xarit ci digganteem ak Shams ni ko noon du ko bàyyi mu nekk ci difficulté yi nga xam ni nekk na si ñu jàll ci Sara Sara na mi ngi essayé rek euh, di euh, manipuler waat ki nga xam ni moo di Eva ngir delloo si ko waaye mel na ni Eva bi pa faalewu ko ndax Eva mbëggeelam ci Ousmane da ko ëpp doole moom it ba gisul euh, déggul waxul ndax moom lenn rek moom moo ko yittee jamono ji te mooy nekk ak Ousmane fonde ak moom famille waaye Eva moom jàpp na ni Ousmane day profité wu ci moom rek def ko ni mu defoon ñi passé Eva loolu yëpp taxul rek mu daal di koy gëm li ñu naan nag mbëggeel dafa bëri doole loolu moom moo am ndax Eva moom mbëggeelam tax na nanguwul sax déglu Sara euh, te li mu bëgg mooy Sara daal di bàyyi nit ñi ñu dund si jàmm ndax jàpp na ni Sara nu muy contrôler vie vie wu nit ñi tegewu ko ci yoon te it nag day xaj nit ñi ñu dund seen euh, bonheur ñu jàll ci Ramatulaay Ramatulaay nag moom yaakaar naa ni mu ngi sosaarne wu ci kaw euh, ñëpp li ko waral nag mooy xolam neexul ndax digganteem ak Masamba fi mu mujjee neexul te it nag bu ngeen meroowee da nga koy bëgg a sippi ñépp ndax sa xol moo dul neex sa xol bu neexul mënul neex ci kenn ki nga xam ni moo di Aysatu itam ni moom la def ndax dafa ñëw daal di xuntu ci kaw ñépp loolu nag jaaxal na biisu ndax biisu moom jàppoon na ni Aysatu du ko mës a euh, na ko ñu jàll ci Rosé Rosé nag li muy dund métti na trop waaye yaakaar naa nit loo mënti dund da nga ko war a partager ak euh, nit ñi ndax nit ñi ñoom ñooy ñoo xam ni euh, boo amee problème boo ko waxee ak ñoom war nañ la see mën a jàppale ndax nit nitay garaba waaye mbooloo mooy doole lu kenn mën ñaara ko ko yàq kon euh, Rose bien fait de parler avec euh, Massamba euh, bien vrai que nii nag waxu ko ko pour am si moom dara waaye nag nit lu ñu naan ku la ëpp la ay sagar Massamba war na ko mën a dimbale ci na ndax bu dul dara sax pere bi nga xam ni def na ko ci entreprise bi Massamba mun na ko koo may wala nag mu daal di ko koy fayal kon yaakaar naa ni partager say problème nekk na loo xam ne lu baax la ndax nit ñi bu ñu xamul sa problème du ñu la mën a jàppale waaye bu xamee sa problème dinañ xam fan la ñuy jaar pour jàppale la ñu jeexal ak nag aysatu métti na ko jaaxal na ko ba tax mu woo ko waaye nag li mu gis mooy aysatu moom it mbëggeel rek moo ko jàpp comme moom ramatulaay kon ñoom ñaa ñëpp seen xol dafa neexul jamono ji waaye moom aysatu moom mi ngi xalaat sax euh, demaat defaraat vie wam nekk ak keneen ndax jàpp na ni Shams da koy perdre temps te nag euh, Shams euh, jarul daal yenn yi ba tax na kon mu bëgg daal di nekk ak keneen waaye ndax dina yomb ndax ku ne xam na xol kenn du ko contrôler te nag nekkul ne nit ki da koy gis rek bëgg koo bëgg ndax nga bëgg ko mais day fekk sa xol daal di koy nangu ba pare kon mbokk internet di foofu ñu yem ci épisode 39 bu série cœur brisé jox leen dig daje si beneen épisode waaye laata boobu woy leen di abonné ci seen série TV bu leen fàtte ba si cloche bi pour ngeen di jot suñ vidéo yi à temps réel jërë ngeen jëf